الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين جوتاي بلن جمعية أهل القرآن الكريم دان لين إندل دي ورت للقرآن ترتيلا تنين كوي أمتشي سين سود انترنت أهل القرآن بوكم ولا تاي كونت يوتيوب أهل القرآن ولا لاميزو دي كورا دي جوتاي بيغا خمني دان كوي أندون دي جانغات ريغلي غا خمني ci eh, lañuy eh, eh, teg njàngum alquran mu jub àndoon ceeg yéen ci téere boobu tudd tuxfatul atfal bu cheikh suleymane ngeen topp ñu ci téere boobu ba yàlla dogal mu daanu ñëw nañ tey nag pour euh, dalaat ak yéen beneen téere ci wàll gi beneen téere ci fànn gi boo xam ni bu ñu miin la bu ñu xam la bu waa fànn gi xam la di muqaddimatul jazariya ngeen ci ànd ak seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Gueye euh, téere bi ñu war a dal nag euh, di muqaddimatul jazariya noonu lañ koy gàttale waaye téere bi am na aw tur bu mat sëkk woo xam ne dina feeñ incha allah ci laytaayul borom téere bi ki ko bind ma cheikh Mouhamed ibn al Jasari rahimahullah nañu defoon ci ak njalbeen rek la ñuy fas yéene wëyal mooy téere bu ñuy dal bu nekk bala ñu ko door ñu jéem a xam aslef ci dunduk sëriñ boobu yi nga xam ne moo bind téere bi kon suñu jotaayu tey incha allah jéem a ànd خم أسلف تدند آه، الإمام محمد بن الجزري آه، إن شاء الله رحمه الله موم لن بقى آه، جوخي نبذة عن حياة الإمام محمد بن الجزري رحمه الله شيخ محمد بن الجزري من تدون محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري سيونتي ابن الجزري fuñ ko waxe rek mom lañ ci jublu waye turu wu mat sëkk wi moy muhammad muhammad ibn muhammad ibn ali ibn yusuf al-jazari rahimahullah ñu daan ko dakantele abul khair abul khair mi ngi dekkon ci jaziratu buutaan jaziratu bhutan moom lañ daan wax aljazari bu njëkk nekk ci janub turkiya fii turc eh, frontière ak iraq ak suri dëkk bo yi tuddoon aljazair bu njëkk te tëdd tudd buutaan léegi foofii la cheikh mohamad ibn aljazairi rahimahullah dëkkoon mi ngi juddoo dimashq guddik samedi ñaar fukki fan juróom ci weeru koor 751 ci gadda gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samedi 25 ramadan 751 ci gadda gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum hijra loli mi ngi tombeek le 30 novembre 1350 le 30 novembre 1350 ci miladiya atum juddu Isa شيلا الإمام ابن الجزري رحمه الله غني أدنى قصة غني أدنى ميت لخوية ملا نيكو ترجمة الأمن نيكو تي إندي ويجرم رحمه الله خوانا يغ تي دين تي سخنا تي على دوغل مو أم غني بيال دوغل مو أجي بيم أجي نيان بروم سبحانه وتعالى تبير أجي جمنا بمينا نخم زمزم نخ يونتو صلى الله عليه وسلم دفعني زمزم لما شرب له ndoxum zam-zam nit ki bu koy naan lum ci yéene ñaan ko ci borom subhanahu wa taala incha allahu dana ko nangu jamono jooji ci la teewlu ñaan boromam subhanahu wa pour yàlla mooy ko doom ju baax joo xamante ni borom xam-xam bu mag lay nekk yàlla subhanahu wa taala nangu ak ñaanam ndax daa jóge ci aj gi ramadan ba ci topp rek yàlla dogal mu am doom muy Cheikh Mouhamed ibn al mii danga yëg ni kon daanaka daa ñaan rek yàlla nangu ñaan gi ndax diggante dil nga xam ne muharrama ci topp ak bi Cheikh Mouhamed Ibnul Jazari ganee àdduna juróom-ñeenti weer yu mat sëkk yi nga xamante ni moom la gone di def ci biiru ndeyam kon da ci yége ni bam ñaanee ñaan gi ci aj gi dellu si ci aj gi ñëw ci njabootam ci la yàlla dogal ñaan gi nangu soxnam toll diggante net juróom-ñeenti weer ca ramadan ba Cheikh Mouhamed Ibnul Jazari gane àdduna di ñaanu bàyyam gundangoo gii eh, lenn cig dundam ak fi mu màggee mi ngi màggee dimashq jànge fa alquran mokkale ko fa bi mi mokkale alquran mi ngi am fukki at ak ñett yàlla dogaleet bi mu ko mokkalee ba at ma ca topp jiiteene kaamil bi yépp fatiha ba naas yi ca fukkeelu atam ak ñeenteel at ma ca toppit di fukkeelu atam ak juróomeel fekk mi ngi yokk àlluwaam di jàng qiraat riwaayaat ci la yàlla dogal mu ifraad al qiraat al ashr ci atum fukk ak ñi ak juróomeel kon ci la ifraad al qiraat al ashr eh, qiraa par qiraa jàng yëpp bam jeex ñu teg ci ñaari at mu am fukki at ak juróom ñaar ci la jamu al qiraatul ashra kon da nga yëg ni ci fànn gi mu bind ak gim gën siiwe teel na cee tàmbalee dajale ak teel cee tàmbalee euh, jàng teel cee tàmbalee jàngale it ndax fukki at ak ñett ci la mokkal alquran ñeent mu jiitee alquran fukki at ak juróom mu ifraad al qiraat al ashr fukki at ak juróom-ñaar mu jamcu alqiraat al ashr moom Cheikh Muhammad ibnul Jazari rahimahullah aji na ay yoon eh, dem na tamit eh, réew yi xam-xam yi nga xamante ni moo siiwoon ci jamono jooju fu mel ni Égypte ak yeneeni barab ay yoon dajeek aimatul qurra jàngalekat alquran yu mag ya fa nekkoon diggante eh, Makka Madina Égypte jàng ci ñoom alquran jànge ci ñoom xadis jànge ci ñoom fiq ku yaataloon la ci fànn gu bari gën naa siiwe rek ci tajwid qiraat waaye ku yaataloon la ci fànn gu bari amoon xam-xam bu yaatu it ba tax na abul fida ismail ibnu kathir ibnu kathir al mufassir ibnu kathir mi ñu xam ñun ñëpp borom tafsirul quran al azim borom al bidayatu wa nihaya borom qisasul anbiya di borom xam-xam bu mag a mag a mag ijaza loon na Cheikh Mahamadul Jazari ci ifta maanaam toll ci niveau ñu war koo mën a laaj ci diine muy ubbee ndax xam-xamam bu yaatu bu mu xamoon ci moom ak euh, jekku gum jekk woon fànn yu baree bari ci xam ci xam-xamu diine yi ci lislaam yu koy may mu mën di ubbee nit ñi ci wàllu diine boroom xam-xam bu mag la woon niñ ko junje sànq ci wàllu tajwid waaye nekkuloon boroom xam-xam ci tajwid kese boroom xam-xam la woon ci tafsir boroom xam-xam la woon ci xadis boroom xam-xam la woon ci fiq boroom xam-xam la woon ci usul boroom xam-xam la woon ci tawxid nekki noonu balaaga ak luga noonu la tukkee dem dëkk yu bari turk dem fu mel ni bilaad ruum jànge fa jële ci seeni boroom xam-xam Iran ak ñeneen ak yeneen i barab ak yeneen barab yoo xamante ni dem na fa jànge ci ay borom xam-xam yu nekk foofii almaam ibnu jazari rahimahullah jàng jàng na ci ci ñu bari mënees na ci lim ñenn bu dee ci borom xam-xam dimashq mën nañ cee lim ku mel ni abu muhammad abdulwahab ibnu sullar alimam jazari rahimahullah jàng na ci moom asha ahmad ibnu ibrahim tahan alimam jazari jàng na ci moom ci borom xam-xam dimashq la bokkoon الشيخ أحمد بن رجب الإمام الجزري رحمه الله جانغنا موم القاضي أبو يوسف أحمد بن الحسين الكفر الحنفي الإمام الجزري جانغنا موم أك نيني بروم خام خام يو خامتني نيغي دكون دمشق أك ليكو كذلك جانغنا أي بروم خام خام يو بري يو والو إيجيبت لمن الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي الإمام الجزري جانغنا موم العلامة أبو عبد الله محمد ibnu sair moom it borom xam-xam bu mag la woon al imam al jazari jàng na ci moom ku mel ne al cheikh abu muhammad abdurahman ibnu al baghdadi kadalik ab sëriñ la woon ci sëriñi cheikh mohamad ibnu al jazari rahimahumullahu jamian al cheikh abdul wahab al qarawi moom tamit kadalik jàng cheikh mohamad ibnu al jazari jàng na ci moom kon ab lima ngi noonu tamit ñoo xam ne ay borom xam-xam yu mag la woon ci seen seeni jamono ci Égypte ak li ko wër Cheikh Mohammed ibn al-Jazari rahimahullah jëlee na ci ñoom xam-xam kadalik lu mel ni goxub Midinatul Munawwara ak li ko wër jàng na fa jàng fa ci ay borom xam-xam yu mag mën nañ cee joxe misaal ku mel ne al Cheikh Abu Abdallah Mohammed ibn Salih al Khatib kenn la woon ci ñu jàngal Cheikh Mahamadul Jazari ci Medina ak lu ko wër kadalik euh, yeneen xam yi nga xam ni fàndu na ci géeju ci xóotal ci lu mel ni xam-xamu xadit fiq usul luga jàng na ko ci ñu baree bari mën na sa cëlim ku mel ne Cheikh Diyauddin Saad ibn euh, Saadullahi euh, jàng na ci moom Salahuddin Mahmad ibn Ibrahim ibn Abdullah al Maqdasi al Hanbali كذلك آه، جانغل نكو لن تي فان خم خم يويو آه، شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني كذلك آه، جانغل نشي محمد بن الجزري لن تي فان خم خم كذلك نينكو جونجا سانق المفسر الكبير ابن كثير رحمهم الله جميعا موميت جانغلنا شيخ محمد الجزري فن خم خم موم سوخ موكو نجيك اجازال تي مو افتا اك te ijaasa boobu mu ko ijaasaal mi ngi nekkoon 774 ci gàddaay gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la jàngale ñu bari moom tamit Cheikh Mouhamed ibn al-Jazari mu des na cee lim doomam Aboubacar ibn Mouhamed ibn al-Jazari mu des na cee lim tamit ku mel ni Ibrahim الشيخ ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي كملني عبد الدائم بن علي الازهري كملني ابو بكر بن محمد ibnu misbah alxamawi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante nii cheikh mahamad ibnu jazari jàngal na leen ko mel ni ali ibnu muhammad ibnu hamza al xusayni moom it cheikh mahamad ibnu jazari jàngal na ko ak ñeneen ñoo xamante nii daanaka mëneesu la takk seeni tur ci benn jotaay ak njëriñ liñ am ci fànn xam-xam yi nga xamante ni cheikh mahamad ibnu jazari jàngal na leen ko bind na moom it ci wàll gu bari waaye rawatina wàll gii nga xamante ni ci lañ nekk muy tajwid ak qiraat bind na ci bu baax a baax ma des na cee joxe lenn ci ay turu téere yoo xamanteni ni Cheikh Mohammed ibn al-Jazari moo ko bind mandumatul muqaddima al muqaddima fi ma ala qaari il qur'ani an ya'lama te mooy téere bii ñu bëgg dal moo ko bind تحبير التيسير في l العشر al محمد الجزري Mohammed ibn al-Jazari moo ko الشيخ محمد بن الجزري موكو بند غاية النهاية في طبقات القراء ممتير لبو خمنتني الشيخ محمد بن الجزري موكو بند التمهيد في علم التجويد تي أم بندم لبوك منجد المقرئين ومرشد الطالبين تي بندم الشيخ محمد بن الجزري لبوك منظومة الدرة المضيئة الدرة المضيئة في القراءة الثلاثة المتممة للقراءة العشر المرضية moom moo ko bind di téere bi nga xam ni mooy ànd ak matn chatibiya xirz al amani wa tahani pour ñoom ñaar ñu ànd bokk nekk al qiraat al ashr al sugra ndax chatibiya juróom ñaari qiraa yi la indi al qiraat sab'a durra bi nga xam ni moo mottali si eh, ñett qiraa ya des al imam chatibi ibn al jazari moo ko bind rahimahullah eh, mott jàngale ci qiraat abi jaafar قراءة يعقوب قراءة خلف العاشر منظومة طيبة النشر في القراءة العشر أم بالنملة دي بتيري بيغا خمنا جمعونك القراءة العشر الكبرى إتحاف المهرة في تتمة العشرة بالنملة وهي غاية المهرة في الزيادة على العشرة لول تميت لن لتي أم بالنم كون تيري يولم لن لتي بندم شيخ محمد بن الجزر رحمه الله فاني جيني وخ di fànnuk tajwid ak qiraat Cheikh Ahmadul Jazir rahimahullah eh, mi ngi génn àdduna yoor yooruk aljuma tombeeg juróomi fan ci weeru gàmm rabiul awal 833 ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna Iran ci këram googu nekkoon ci Shiraz ci Iran ñu denc ko foofii ci daara jam fa sosoon ko daarul Qur'anil Karim bi muy génn àdduna mi am juróom ñett fukki at ak ñaar kon lii ak tënku gàtt la mbokk yi eh, gu tënku sax ci dunduk eh, borom xam-xam bu mag bii ci fànn gi ak yeneen fànn di a cheikh binul Jazari rahimahullah ndax ñu lay taaye ko téeréem bi ñuy waaj di al muqaddima fi ma ala qari il qurani an yalama seen bokk la woon Abu Taha mu nekkoon ak yéen ci seen jotaay wa rattilil qurana tartila ngeen di ko amee ci seen compte YouTube